maaleykum nuyu naa leen jaar leen bu baax a baax euh, tey tem bi ma leen di proposé moo ngi noonu ngeen gis ko comment plaire à somari jigéen naka la war a mën a def ba jëkkëram gën ku bëgg gën ko fonk bu ngeen seetee Sénégal ñu bari dañuy wax ci jonge jonge jonge au fait lan mooy jonge parce que bu xoolee Sénégal léegi euh, si yu bari dañuy gaaw a tas divorce yi bari na couple yi am problème yi bari na Euh, lan mooy problème bi yan solution lañ ci war a mën a apporter euh, loolu laa bëggoon tey ñu waxtaan ci d'abord bim bi jiitu jigéen euh, li koy njëkk góor li koy njëkk frappe ci jigéen bokk na ci taaram ci colinam ci comportement am ci jikkoom rawatina nag ci comportement am tey jii góor day gis jigéen boo xam ne dafa jekk macha allah wala rafet mu gis ko abordé ko tey da ngay góor mu apprécier la mais da ngeen di dem ba ci biir nga won ko ay qualité wala ay jikko yoo xam xamante ni day tax mu gën la fonk gën la bëgg sa jëkkër tey bu la takkee gis ci yow ay qualité yoo xamante ni moo ko neex ba mu takk la indi la këram tey bu la indee biir këram nga war a sëy da nga war a neexal sëy bi liñ lay wax mooy jigéen day muñ tey fonk jëkkëram mm, dafay jonge jonge lan mooy jonge jonge nag buñ ko déggee euh, du taal cuuraay bu neex du teg la say vingt pots de cuuraay takk say fer say nuisette lal drap bu weex yooyu yëpp c'est bien beau mais li jiitu mooy xam sa devoir xam sa wareef xam sa devoir xam sa wareef nag du lenn lu dul na nga mën a toppatoo sa borom kër nga xam sa boor xam sa wareef ndax euh, gis naa fi ay jigéen yu bari yoo xamante ni li ñuy jooy chaque jour moom mooy euh, seen jëkkër dafa bari commandement dafa mën a yóndee dafa tayal dafa nii dafa naa amul yërmande des fois du ma ne ci góor ki la mais ci jigéen ki la parce que yow jigéen tay da nga am loo xam daf la war ak sa sa diggante ak sa jëkkër parce que jigéen tay sa jonge mi ngi tàmbalee ci sa xam sa devoir xam sa wareef bu njëkk tey yaa ngi nekk sa biir eh, kër di sëy am na loo xam ne c'est le minimum nga war ko mën a def sa jëkkër bu wàccee da ko war a toppatoo toppatoo bi fi muy commencé moom mooy accueil accueil d'abord sa jëkkër bu wàccee da ko war a gàttandu accueillir ko bala muy wàcc nga sangu ba set sol lu rafet xeeñ lu neex sol lu rafet nag du sol yére bu riche yére bi ngay sol nu mu mënti mel donte voile la sax na set na rafet nga xeeñ lu neex bu laajee nga maquillé wu nga maquillé wu kër gi nga defar ko ba mu impact na lépp nekk en ordre bu ngeen amee ay doom xale yi aussi na lépp nekk en ordre sa jëkkër bu wàccee ak accueillir ko may ko ndox bu sedd nga dalal ko naka coono yi yaa xam tur boo koy woowee papa chéri yi bébé daj yi ku ne ah, ni ngay woowee sa chéri ah, nga woowee ko sa tur bu la neex bu wàccee nga dalal ko ah, may ko ndox boo koy may ndox nag ku ci nekk ak ni nga ko bëggee mais tamit góor dañ ko war a toppatoo góor bu ñëwee ci biir kër am na jigéen ñoo xam ne dañuy beral seen jëkkër verre buñ koy mayee ndox am na si jigéen ñoo xam ne seen yoon nekku ci mais yooyu noonu affaire yu am important la euh, jigéen war nga mën a jonge benn xeetu jonge boo xam ne sa jëkkër léppam danga ko ko war a beral à côté nekkul ne gan moo war gan nga war a xaar bu ñëw rek nga génnee verre bu gën a rafet assiette bu gën a rafet napp yi gën a rafet yooyu yëpp da nga ko war a pour sa jëkkër sa jëkkër wàcc na jëlal sa mm, sa plat plateau bu nice jël sa verre bu nice def ci sa ndox bu set may ko mu naan sukk dalal ko euh, bu laajee nga dem defaral ko mu sangu ba set mu sangu génneel ko yére bu tey tàngaay la nga génneel ko lu oyof mu sol ko nga taajal ko añ lalal ko nàpp bu rafet mu añ ba suur bu paree nga maye ko ndox defaral ko lu sedd Sénégal metti na mettiwul fukki dërëm sax soo ko yoree dem jënd bisaab bu fukki dërëm wala cent franc jox sa jëkkër mu naan seral nga xolam ak may dégg dalal ko waxtaanal ko bu dee góor bu bëgg ataaya nga ataayal ko bu dee góor bu bëgg njar jus bu la neex jus naturel yaa ngi fi yomb na bu bëgg a dee c'est accessible à tout le monde loo am nga defaral ko bu pare nga waxtaanal ko dalal ko góor dañ koy nax góor moo xale yam mais yow bu fekkee da nga nekk jigéen da ngay xaar tey sa jëkkër ne la chéri may ma ndox defaral ma ma sangu may ma añ da ataayal ma defaral ma lii defaral ma lay en fait xamoo sa devoir léegi tey boo nekkee góor boo xamante ni tey euh, lu nekk daf la koy laaj pour nga defar ko bu yàggee nga ne ku góor ki dafa bëri commandement bëriwul commandement de yow yaa xamul sa devoir góor encore une fois mu xale yam góor dañ koy nax góor boo ko toppatoo toppatoowee rek yaa ko moom mais bu dee da ngay bàyyeeku ah defoo sa devoir defoo dara mais faut que ku góor ki tamit di bëri commandement dañ ko waxte dee hmm? gis nga góor ñi neex nañoo jubool góor lu mu sikk sikk sikk boo koy toppatoo wàccee da nga koy toppatoo ko teral ko ba mu mel ni buura la set sa biir kër ma ne bu doon day wëri ci biti di doxaani sax bu wàccee day yàkkamti ñëw ci kër gi ndax non seulement may nga ko jàmm yaa ngi koy toppatoo hmm? ma yemale ko fii suite bi incha allah après prochaine fois ñu daal di koy yeggali